la ilaha illallah hamidul majidu la ilaha illallah jalla jalaalu yow yàlla la ilaha yam sakki yaa nu moom yaa nu bind yow yaa nu yilif majiidu laa ilaaha jalla jalaalu yow yàlla laa ilaaha jalla sanaawo yow yàlla laa ilaaha jalla baqaawo yow yàlla laa ilaaha illallah jaliilu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 alfaradu samidu yow yàlla la ilaha illallah yuhyil mawta la ilaha yamuutu moom mooy dund moom du faatu moom yàlla la ilaha illallah malikun azim la ilaha xannaanul mannaanu yow yàlla la xëhëru fataaxu la ilaha illallah xayru laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah albarisul warisa laa ilaha illa laa ilaaha illallah yuxyil mawta laa ilaaha illallah alxayu laa yamuutu laa ilaaha illallah malikun azimu laa ilaaha illallah xannaanu mannaanu laa ilaaha illallah xër fataax laa ilaaha illallah xayru raaziqiina yow yàlla laa ilaaha illallah xayrul xaalidiina laa ilaaha illallah xayrul muqsiina laa ilaaha illallah xayrul tawaabiina yow yàlla laa ilaaha illallah hakiimu lay laa ilallah jabbaaru yow yàlla lay malikul mulki lay laa ilallah malikul quddus lay laa ilallah malikul masrixayni wal maghribayni lay laa ilallah malikul zulumi wan nuur lay laa ilallah laa mooy nguur ku ba xëy faatu perte la jaamu leen ko balaa ñaaw ku la jaamuwul ba xëy faatu perte na xul wallaahu ahad allaahu samad lam yalit walam yulat walam yakun lahu sa nguur gi rek mooy nguur yow yàlla laa ilaaha illallaah malkul zulumi wa nuuri laa ilaaha illallaah malkul arsi wal kursi laa ilaaha illallaah malkul leyli wa naari la ilaha illallah malikul insa wal jinne la ilaha illallah maliku sirati wal mizan la ilaha illallah malikul malaika wal anbiya la ilaha illallah malikul asjar la ilaha illallah malikul jannati salam la ilaha illallah malikul jannati jalal la ilaha illallah malikul jannatul khuldi la ilaha illallah malikul jannatil mahwa la ilaha illallah malikul jannatil ahla la ilaha illallah malikul jannatul adli لا إله إلا الله ملك الجنة النعيم لا إله إلا الله ملك الجنة الفردوس لا إله إلا الله محمد رسول الله الله جل جلاله رحمن رحيم ملك خدوس سلام مؤمن المؤمن عزيز الجبار متكبر الخارق البارق المصور الغفار قهر وغابر ذو فتاح يلا يا برم جام لا لا لا لا sonu jéggul dana ñaaw jala jalaalu ku la jaamul ba xëy faatu moom perte na ku la jaamul ba xëy faatu perte na yàlla am na baay faalam baay faalam mooy seyduna muhammad muhammad rasulullahi seyduna muhammad tey jii tey la bisu seyduna muhammad